te bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga man see jot. yóbbante fële ci buntu Pikine muy ak càcc ak euh, tafu bu métti bu am ci oto ya euh, ki ma yóbbante nag ñor na ko lool ba bu may dugg fàttali na ma ko nee na ma foofu daal ci Pikine liñ fa euh, seetlu mooy maanaam ñii sàcc ñooy ñëw ne ci oto yi mel koy dem bu ñu gisee ñu nga xam ne par lañu war a dugg te yaa ngi ci sept heures quarante neuf wala trente dañuy xam dañu bëgg a dem bu ñu ñëwee dafa am koy boloo le temps ñuy buux buux la dugg ñuy bloqué porte ñu ngi bloqué ñuy sàcc ñu ngi ni daal bëgg nañu dénoncé ko ngir loolu ñu jëlab ca buntu Pikine wala su mënta nekk kuy demate buntu Pikine bi dugg nga xam ne ay sàcc la waaw kooku di dégg naa ko mu wax ko waaye euh, si biir nañ waaye ab xiif it am na foofu si buntu Pikine xiif waaw xiif bu mel xiif ndax nee na dafa jënd laaxam def ko si mbuusam def ko si saag bi fekk fermeture bi ubbeekuwut nee na si la ko waa ji sàcce nàmp mën nañu ko jàpp sàcc loolu waxu la ko. Abdoulaye xam na sàcc. ah kon fonde bee tax. fonde bi moom la muy delluwaat si kon sàcc ga. waaw daa dugg saak bi xam naa day ci waa ji sàcc fonde bi. <laughs> kon ñooñu. kon tey indaalul fonde. Ah, foofu lañ ko bi kon nag mën nañoo jàpp ne foofu si buntu bi daal téléphone fonde mburu laax ceeb lépp lu waay yor loo xamante ni dina ko soxla na nga si dugal farlu ku mat sëkk. Mhm. sinon ñu woomee ko. kon foofu takk der yi sécurité euh, wala Ousmane su ko dem doxantu di fa. doxantu ko bu fa waree doxantu. ndax foofu sécurité d' accord waaw buntu Pikine euh, buntu Pikine de loolu moom dafa mel ni yàgg nañ ko fi ru mandaat mhm. donc nit ñi gën a bàyyi xel rek. Mhm. si képp kuy dem parce que sensibiliser aussi tamit nit ñi baax na ci. Euh, barab yu xat daal barab bu xat ak mu mën di demee nañu moytu li nga xamante ne bi euh, nañuy bàyyi xel ci seeni téléphone ak seeni saag ak yu ni mel parce que am na ñoo xamante ne bi demuñu dikkuñu noonu la ñuy def fatt kii bi créer désordre ordre désordre boobu nag mooy seen ordre ci la ñuy réglé ba réglé ci li nga xamante ne bi seeni mbir bu déréglé rek ñoom ci la seeni biir di réglé kon boog il faut nit ñi tamit di bàyyi xel loolu moo tax gis nga barab yi pare saa war nañ ko gën a organiser mu bañ a nekk ay buuxante te loolu daf dafa war a ne maanaam fexe ba ñu nekk di organiser mu nekk ay rang parce que xam nga tey am na yoo xam ne bu ñu ko tegee rek euh, mbir mi dina gën a loolu tey sàcc si dinañ gën a am jafe-jafe. man yëngale foofu man noonu. Mm. ah bon. li jógee bunt Pikine jàpp euh, syndicat. Mm. waaw agressé woon nañu. Mm. jot yëpp. Euh, port ñaari portable ak euh, weccet bi loolu. dañ laa taf wala ci biir oto. dañ laa taf. non ci biir oto agressé. génne jaase. non waa ci biir waa génne jaas ak ay armes ñu newoon fa ci oto yëpp ñu jël seen ah, li ñu yor. dañ leen laaj indi leen ngeen boo boo jógee foofu euh, théâtre yi fekkee nu mu tuddati. waaw moom mooy kii oxygène oxygène boo dépassé arrêt boobu. avant nga balaa deuxième rëbb. exact boo passé ci hmm. rek benn arrêt mu taxaw rek apprenti yi am ñett ba ñeent ñuy daw dugg bi ñu dawee dugg rek daw tuuti ñu génn seen i seen i hmm. nangu téléphone yi lampe poche yi génn. na ñëpp. après bu ñu wàccee. daa tuuti ngeen waxtaanee lan. non non oto bi wàccee gars yi xoolal emprunté man xaw ma complice la xaw ma emprunté bi après dafa fëggaat gars yi wàcce ñu avancé waat ñoom ah, ah? ñoom ñu dox seen dox. waaw su ma juumalee daal euh, war war naa def léegi cinq ans xaw ma xaw na yàgg. waaw ah, jëriñu leen daal. lool de même sama benn jigéen fu soriwul fii nii fii fii démb nee na da doon doxantu ci boutique bi génn fu xaw a wéet dafa dund rek ñaari kar ko daal kenn dégg na kenn ki naan ko nag bu ko kii xam naa ko hmm. après waa ji ko indi téléphone bi mu jox ko moo tax seen xaalis nañ koy def si kaa pay caabi boo ko amee Bamba Fépp téléphone bu yemamaay man nga ko am te teew sa caabi di dox. incha allah kon boog euh, Assane doon na ko wax réew mi daal kon takk der yi nga xam ni. Mm. des fois koy gis. Mm. nañu nañu nañu nañu ko tasaarewaat ci dëkk bi. waaw ñu ba digg bëccëg. Mm. génn am looy jënd ñun la indi li nga yor. vraiment loolu euh, doy na waar. 11h midi waaw. 11h midi fii waaw. waaw moom si kuy defeen de. bu wéet. ci ak ni muy kii rek. gars ñoo ànd. bu nit ñi wutee naa ñu. dañ lay pes sax boo waxee ñu ne sama gel ko loo ci man génn ji saa naa dafa invité dama koo muy farantu loo ciy def. ñu ngi bu baax sama jigéen boobu nee na sàcc jot nañoo jël benn am waaye nag defuñu ko ko bàyyi mu dem ndax nee na bakkanam moo ko gënal loolu ñu jël ci moom